la man sonn naa allahu akbar man sonn naa fu ma xalaat dem naa fa ku ma xamit dem naa ci yow ngir sàkku ci yow nga dimbali ma ci sama njaboot gile ndax bu dee benn yoon sax ma teral leen ko ci sama dund gile bu tabaski masaana jub si sama xol day jeex lu ma daan def ma di ko yokk ngir bëgg a teral sama njaboot gile man de jaxle naa aw ma luma terale sama njaboot gile du xoti du khalis du xar waa lii lay jeex li le ñaata at ma ngi toog maag sama gile amuñu luñu tabaske. Suma genné buntu kër yi fekk ñepp yew seeni xar sama dom yi ci geetuñ ci koñ bi ndax ñak xar gu seen bay ñak lum leen terale te yalla li kan lay jeex ñaata at ma ngi koy dund sama gile xanaa ma xaar Pape Niang ak bonne volonté yi ay Pape Niang dimbali ma yàlla tax. asalaamaaleykum wa rahmatullah ku tedd ki santal yàlla bu wér ndimbalul yàlla yëgsi na ci yow xar mi yaay boroom ak xéewal gile bul ñu sant bul ñu gërëm. ñaanalal bonne volonté yi ci jàpp ba lii lépp yemb yéen ñi ci jàppagul def leen ni le ngir ñu mën dimbali suñu mbokk yi le alhamdulillahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki ami internet bu association an taxawu ñu wéri di tv mbokki facebook mbokki tiktok mbokki ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi ci réseaux sociaux yi maa ngi dellu di leen nuyu tey di sant yàlla suñu borom bu baax di sant bu baax ñi nga xamante ni ñoo ma accompagné ren tamit lépp luñ jàppoon ñu bàyyi ko accompagnement lépp luñ jàpp ñu nekk ci liggéey bi yàlla bi te yàlla rek tax te kenn ku nekk ci ñoom a ngi nii taxaw kenn ci ñoom amu ci xar te ay borom kër lañ ay borom njaboot lañ waaye ñoom daal ñu ni jaami yàlla yee leen gënal lépp luñ mënti am ànd ceeg ki nga xamante ni mooy Baye Wuri Ba cas urgence sur le terrain ànd ceeg ki nga xamante ni mooy Baye Paté Souma ànd ceeg ki nga xamante ni moom mooy Baye Assène wax deug yalla and ci ki nga xamanteni mom moom moo Baye Ahmed sugu wax deug yalla and ci ki nga xamanteni moy Serigne fallu Diouf sama Serigne sama xarit sama lepp fep and ci ñi nga xamanteni duñ sonu ben yoon ki nga xamanteni moy ya Adama taxaw ñu di TV borom xol bu rafet bi loko ko laal rek Adam Joy, ci yermandem tay, ñu and ak mom tay sur le terrain and ak ki nga xamanteni moy ya Gaya nekk ku baax nekk ku laabir nekk ku woyof nekk koo xamante ni liggéey bi yàlla bi rek moom moo ko ñor ànd ak ki nga xamante ni wax dëgg yàlla mooy la princesse d'amour di Fatignan ñu ànd ak moom tey sur le terrain ñu fas yéene dundandoo ak moom daaw ñu ngi àndoon ak ki nga xamante ni moom mooy bébé d'amour Ndiémé Cissé waaye ren mu tombeek ki nga xamante ni mooy Fatignan aye wax dëgg yàlla ñu ànd ak moom sur le terrain tey nag dina metti Tay, man demaguma sax waaye fi mu toll nii fi ma taxaw nii damaa xam ci ñi ma jëm kenn ku ci nekk ci ñoom non dina doy waar dina doy waar dina doy waar trop ñu ngi jëm ci ki nga xamante ni di papay Mamadou Lamine Baara nekk fële ca diwaanu Tëngéej wax dëgg yàlla tëdd lu tolloog fukki atu yàlla keroog bañ ko yóbbulee fa ci la gis cant ñu ngi dem ci ki nga di Euh, njabootu Pape Sow wax dëgg yàlla daaw ñu joxoon sen baay xar waaye ren mu fekk seen baay yomal xiyaam ñu defoon ko daaw foog ñu def ko ren waaye ñu jëm ci ki nga xamante ni moom mooy Amary Dia Amary Diaw mi nga xamante ni ci ci bag ci ci ci baat bi lay nooyee ci biir bi lay lay wax mu lu metti dinañ dem ci kaa boo xamante tamit mësta tabaski moom amee borom kër Musul tabaski musul xam lan mooy bànneexu tabaski yàlla mi nga xamante ni moo ñu mayoon daaw ñu defoon ko mu jur lu bari jur kër ki nga Mariama Baaji jur ay mikte ak i xéewal yu bari di sàkku ci yéen ñi nga xamante ni jàppagu leen ci na ngeen ci jàpp te yàlla rek tax dem te santuñu ñi nga xamante ni ñoo seral suñu xol ñi nga xamante ni ñoo tax jaayuñu suñu oto bii ñi nga xamante ni ñoo ñu bégal ci li ñuy bégal ci yàlla mooy ñu taxaw sunu moroomum jàmm te yàlla rek tax ñu sant bu baax a baax a baax a baax waa Greensboro North Carolina euh, su ma ko waxee nag xel du dem ci kenn ku dul Fatima Diop ñu gën ko xam ci Ndey Fatou Diop Greensboro ak waa waañ wa jàpp nañ ci bu baax yàlla mi nga xamante ni moo tax ngeen def ko yàgg ngeen koo def duñ ni duñ ni déetawaay yàgg ngeen ko def duñ ni guléet yàgg ngeen koo def kon yàlla mi am fay yàlla na leen yàlla fay noonu la ñuy sante ak gërëm ki nga xamante ni mooy mooy waa Cincinnati Ohio muy soxna Bintu Diouf ak képp koo xamante ni mu ngi ànd ak moom ci liggéey bi soxna Ami Bokum nekk foofu ca Cincinnati ki nga xamante ni mooy Mama fay nekk foofu moom tamit ci Cincinnati Mama Dramé nekk Cincinnati ak Serigne Moustapha Kebe jàmbaari waar wi ñoom ñu créé benn groupe boo xamante ni ñu ngi ko tuddee jàppale Pape Niang social te yàlla rek tax groupe boobu nag képp koo xamante ni yaa ngi Amérique foo mënti nekk mën ngaa jàpp ci liggéey bi yàlla boobu chaque mois nga joxe cinq dollars soo amee lu ko mën nga def ko ñi lépp loo xamante ni ñoom ñi ñu koy jàppale dañ koy jëlaat def ko ci jaami yàlla yi ñoom de tukki nañ bitim réew waaye seen xel mi ngi ci seen réew ñu ngi bàyyi xel seeni i doomi réew yi nga xamante ni dañoo tumuranke dañoo tawat amuñu ñu fajoo jaaxle sonn mu metti lool wax dëgg yàlla ñu sant bu baax a baax a baax a baax ki nga xamante ni moom moo di Florence euh, Kentucky moom tamit nekk foofu ca diwaanu Cincinnati Ohio wax dëgg yàlla di sant képp koo xamante ni jàppale na. yo daayira murit ya nga xamante ni ñoo nekk si sinaayit yi daayira tiijaan yi daayira laayeen yi ak daayira ñaseen yi wax dëgg yàlla ak association sénégalaise bi nekk si sinaayit yi Ohio wax dëgg yàlla di sant bu baax a baax euh, ñi nga xamante ni mooy mbokk alpulaar ya fa nekk jàpp nañ ci li te gën leen a jàpp ci li nga xamante ni moom moo di groupe boobu nga xamante ni ñu ngi ko tuddee ànd jàppale Pape Niang social te yàlla rek tax muy jàppale doomu aadama yi waaye du ñu dem benn yoon bàyyi ki nga xamante ni mooy Ndeye Aminata Tall Michigan nekk jàmbaar nekk ku baax nekk ku laabir nekk koo xamante ni liggéey bi yàlla bi rek a ko ñor ak waa ak waa salon ba ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di sant bu baax sama maman muy ki nga xamante ni mooy soxna Marème Mbeng GP nekk foofu ca diwaanu itali ak Thiès kenn musu koo jox bagage ba mu tardé mbaa am ci loola naqar kon soxna mare Mbeng yàlla sa jàmm yàgg du ñu fàtte benn yoon ki nga xamante ni mooy Seydouna Mouhamed Amar dundal ba say may di baawaan tey boo ñu amee jokkalante gi nii ba nit ñi mën a gis image yi grace à Seydina Mohamed Amar mi nga xamante ni moo fa jaar yàlla mi am fay yàlla na leen yàlla fay. aka saa yekun alhamdulilahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki ami internet bu association taxawu ñu wéré di TV tey suma xol neexul ndax fi nu jógee moo metti lool metti lool dëgg yàlla ba ci kanamu yàlla ñu dellu siwaat fii mu gën a metti ñu fekk fi lu gën a teet doy waar muy ki nga xamante ni mooy Amary Diaw mi nga xamante ni sunu borom teg na ko natt bu metti moom Amary wax dëgg yàlla moom problème tawat bu méttee métti ba tax mënul noyyi ci bakkan bi mënul noyyi ci gémmiñ gi ñu génnal ko benn tuyau weñ ci baat bi foofu lay noyee foofu lay tuflee ba noppi ñu daal di koy utal benn raakool boo xam ne directement ci biir bi lay dugg wax dëgg yàlla ci lay lekkee ndax amari mi tëdd mën naa xamati cafka lekk ndax Amary mii mën naa xam bànneexu lekk ndem looy lekk ci sa làmmiñ wala ci sa gémmiñ ngay santire li ngay lekk saf na xorom wala saf na suukar waaye mu nekk ak rakkam ju baax ju ko yërëm ju laabiir yoo xamante ni wax dëgg yàlla mu ngi koy taxawu ci bépp na amatul xëy amatul jubluwaay ba noppi yàlla jox ko soxna soo xamante ni jigéen ju mën góor soxna su mën a muñ soxna su bëgg jëkkëram ndax jëkkëram fii mu toll de am na ñeneen ñu fi doon doon du ñu fi xaar sax feebar bi di yegg si fii ne nañ la bu yàgg ak taxawaay bii nga xamante ni moom la ko soxnaam taxaw moo ko fi téye ba tey kon yàlla na fi gën a yàgg moom Amary soxna si maa ngi lay nuyu di la ziar. Euh, ginnaaw bi nga xamante ni defaloon nañ leen ci vidéo nit ñi jàppale leen ndax taxoon na seen xel daal. waaw alhamdulilah sant yàlla ba. bu a tamit sant mm-hmm. bi ñun ñëpp. Mm-hmm. Euh, tey sànni mu nañ ni xaw na am taw féex ndax keroog bi fi ñëwee daanaka mënalul woon boppam dara. ndeysaan euh, mu mel nii jamono bii nag wax dëgg yàlla metti na lool ñu ñëw fi tey seet si ko te yàlla rek tax ndax euh, seeti sa moroomum jàmm tawat bokk na ci jaami yàlla yi gën a màgg ndax wax dëgg yàlla bu ñëpp doon def noonu kon feebar bi mën na wàññeeku lool ci moom lu mu metti metti metti muy gis ay mbokkam dana am lu bari lu mu delloo si ci moom lu baree bëri ah wax dëgg yàlla ñu jëm ci nag jamonoy tabaski mu metti lool wax deug yalla ndax yow ngeen moom xam nañ ni dañ ngeen ci ay coono nan ngeen di waajalee tabaski bi. tabaski bi kay ñu ñaan yalla rek mu nekk ci ci ak ak mhm. eh, ndax jamono bi ñu toll wax ñaan rek tabaski bi ñun moom ci si le tour. taxi cinq mille dem cinq mille ñëwaat. ordonnance yi léegi léegi bu ma yegsee rek laa jënd laa lañ jënd boo xamante ne bu ñu dese woon ñu daal di ko mhm. mu nekk lu méttee métti wax dëgg yàlla euh, mu mel ni ci sa biiri kàddu dégg naa ngeen ni yéen dafa mel ni sax talu leen tabaski bi. dëgg yàlla tal tal ko de ñu ñaan yàlla nag fekke ak wér. Mhm. waaye saa yi moom dëgg yàlla. Mhm. moom daal moo ñu ëppal solo wax dëgg yàlla. Euh, ginnaaw tabaski ren moom euh, boolewuleen ko ci seen programme euh, lan moo ko waral ndax ñàkk xaalis la wala ay jafe-jafe la wala daal lan moo ko waral. xam nga boo yoree malaat bu mel nii malade boo xam ne mënul boppam dara dañ koy yóbbu dañ koy indi te yaram bi fan yi naqari na naqari boo xamante ne dañuy toog ba guddi mu fat ñu jël taxi tey aller-retour 5000 dem 5000 ñu xam nga ko loolu boo ko yore yorewee. Mhm. lépp lu la yàlla may doo tal def dara mhm. da ngay tal mu jógee ak ñu ko yàlla saafaralee mhm. euh, si euh, mu mel ni metti na lool wax dëgg yàlla metti na di sàkku ci bonne volonté ñu gën ci jàpp kon ni ci jàppee woon te yàlla rek tax bu leen wàññi dara dina leen yokk ndax wax dëgg yàlla ni boppam dara euh, ginnaaw tabaski gii moom boolewu leen ko ci seen programme mm. lu dul tabaski gii

boo déggee nga xotti xale dangaa yor loo xottee duñ xale ndaxte mënu yor malaat nga ne yow dangay xotti say doom wala di def leneen ak leneen te fekk yaa ngi yor xamante ni ñu lay seetaan di ñu jàppale la ci sa njaboot bi te yàlla tax jàppale la ci tabaski bi jàppale la ci sa borom kër te yàlla tax maa ngi leen di ñaan rek di leen jaajëfee ñoom tamit si seen taxawaay bi ñu taxawoon rafet na gis nañ ko mhm. di leen ñaan yàlla it ñu gën a yokk di jàppale daal ak ñu mën a dimbalee di gën a dolli jàppale bi ñu jàppale woon. ndaxte période bi fii ñu toll nii. ba ñu envoyé dalal jàmm bañ demee. foofu machine bi dafa paan. am na feneen fu ñu envoyé waatoon. foofu consultation bi kese rek. nee nañ juróomi junni ngay fay te xamagoo loo fay fekk. ñaan jàmm ñaan jàmm yàlla yi nag di leen jaajëfal lool seen taxawaay rafet na waaye it lu waay man rek. ñu mu nekk bi nga xam ne dégg nañ kàddu yi soxna si wax mu ni tabaski moom bokkul seen programme ndax moom lañoo wax li ko waral. xam nga malade moom comme ni mu ko waxee rek malade moom boo ko yoree boole ko malade boo xam ne dafa xaw a sonn te lu ne xaalis bi te saa yoo demee ñu bindal ordonnance ak analyse ak et cetera. xoolal euh, bu ñuy bu ñu ko retek léegi ñaari ñaari kii sax def nañ ko ñu tuddee sax def nañ mhm. yoo xam ne benn bu nekk waat bokk na morom mhm. te saa yoo ko defee ñu naan la lii ñu naa la lee ñu naan la lu ne daal dëgg yàlla tamit nit moom sañoon moom doo manqué dara mhm. waaye tamit instant yi jamono yi ngeen fi ñëwoon tamit ba nit ñi am waat li ñu jàppale dëgg yàlla amoon na waaye taxawul parce que loo saa yoo demee rek dina am liñ la sant dina am liñ la def loolu dina am lu war te xool bu mu génn léegi sax daanaka sax yàgg. te sa lal bi dégg ko sax mu nooyee nga xam ni dafa sonn dafa sonn sonn na de. soxna si nga def. noo tudd. la. sama euh, la. nan la lay def boo ko gisee mu tëdd ci lal bi feebar mënul defal boppam dara. tey lan ngay wax ñu lay seetaan ndax fi mu toll ñu ngi jëm ci tabaski ndax xotti nga. lu tax xotti woo. ndeysaan kon daal tabaski gi yéen moom bàyyiwu leen ci xel. lan moo la gën a metti ci sa àdduna. allahu akbar allahu akbar metti na tey lan ngay wax bon volonté yi ñu jàppale la ci sa papa te yàlla fa ndeysaan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 ñu ma paas si tey boo màggee tey ba yàlla defal la nga tekki lan nga bëgg a terale sa papa. allahu akbar allahu jullitu yàlla yaa ngi dégg nit ñu baax ñaa ngi dégg nitu àjjana yaa ngi dégg defkat lu baax yaa ngi dégg ay waay xool leen ci yàlla ay waay xool leen ci yàlla ay waay xool leen ci yàlla Amary mii de képp ku ko dimbali ba mu jóg képp ko dimbali ci njabootam gii ba mu jóg ko wuutu ci njabootam gile sunu borom dina la fay dégg ngeen ko doomam ji kàddu yi nga xamante ne yëkkati na ko nee na metti na ko lool papaam di tëdd ci kaw lal bi benn place mënta dem mënta dikk te lépp lu muy lekk dara mënta saf ci moom allahu akbar ci xale mu metti lool tey bu la yàlla dénkoon tey ndax di nga jëndal sa papa xarum tabaski till بحماماتنا jëf ñuy nuyu ñi ni seetaan ñëpp ci Hann Taxawu ñu Reddi TV ah, di sant yàlla bu baax ci liggéey bu rafet bi nga xamante ne teewe nga ko daaw ren jii nga taxawalaat ko ak ñépp ñi la ci jàppale boo gisee daanaka man fii bañ fi njëkkee ñëw sax waxu ndax jëm ji ku ko xool xam ne euh, tawat ji sonal na ko maa ngi koy wax léegi si biti ma ne man benn problème rek laa gën a am ci feebar bi mooy bu xiifee nan la koy waxee nit ñi ne damaa xiif ak buñ koy jox bam suur nan la leen koy waxe nga xam ne kon metti na tey mu tëdd mënalul boppam dara ni nga ko waxee léegi doomam bi nga ko laajee léegi xalaatutoon sax tabaski ay waxi tabaski moom nekkutoon sax ci boppam waxi xotti solu nekkutoon ci boppam ndax lan ki ko ko war a defal mi ngi nii tëdd mënul boppam dara mu nekk lu metti nekk lu lu lu doy lu doy waar lu doy waar yërmande yërmande ndax xam na moom am na waajur tey waajuram génn na àdduna kon xam na li waajur di jariñ ci doom kon tey bu gisee keneen koo xam am na waajur donte waajur waa ngi dund waaye mënul doomam dara xolam dina sori te bu amutoon benn yërmande bi ak euh, maanaam yow mi mu jegee li ngay liggéey mu di ko gis loolu même boo amutoon yërmande xol bu woyof sax dina la yóbbu ci yenn yi kon moom lii wane na ne kii bu amoon àdduna li ci biiram tey pour kii jóg mu def ko ndax xam na li ci waajur ba pare am na tey benn euh, euh, maanaam yërmande boo xamante ne nii yow mi mu gis ngay liggéey yaa ko tàggat ci moom ndax xaj na mënoon naa romb ko febar du ko sax lijjanti waye tay bu gisee ni teud ni tawat bam jaral ko mu tour ay ronkañam ba mënta wax ñun dañuy sante yalla sax ci li ko dal ni li ma laaj la koy laajat ndax bëgg na xam sax lu waral mom mu gis ki teud rek mu joy lan mo waral lolu fatiña info na nga wax ak jami yalla yi C'est juste que ma le suis de à l'hôpital. man tamit amona ay Donc ñom suis ñep ñu genn adina place à luy dom. suis luy yaay ci dom. Donc nañuy def lu rek suis yalla à l'hôpital. ko suis solution parce que li comme Maman a tant bien oncle à moi même cas, mais malheureusement, mon dame n'a pas non nom. Je n'ai pas mhm. le nom de mon oncle, mais il y a une solution, quoi, parce que comme nous le voyons, nous devons faire fil petit bébé. Quand est-ce que vous avez volonté là, Isseta? Quand nous appelons, c'est bien vrai que j'appelle un jour, un jour, un jour, qui, Alice, ou Tabaski? ñoo ko gisandoo lu doy waar la nag lu doy waar la wallaay la sim kon nanu ko jàppale te yàlla rekk tax ndax jëmm ji jóg mën a doxiwaat ay soxlaam waaw doy na waar daal doy na waar lool. taxawal bul dem joxal ma ko xar mi xar yaa ko moom lan nga ci wax. jërëjëf yal na leen yàlla fay. kontaan nga. kontaan naa kay. ndeysaan soxna si kay. Eh, xar mi Amary lañ ko jox ñu ngi sant bu baax Ndeye Fatou Diop Greensboro North na waa Cincinnati Ohio yëpp bàyyuñ kenn bu ñu tuddee soxna Bintu Diouf woo nañ ñëpp tudd nañ ñëpp wax dëgg yàlla. na ñëpp bokk ci groupe def te yàlla rek tax ànd jàppale Pape Niang social ci liggéey yàlla bi nga xamante ni mu ngi koy def foofu ci Cincinnati Ohio chaque mois nga joxe 5 dollars wax dëgg yàlla ngir ñu mën a dimbali jaami yàlla yi néew ji doole yi te yàlla rek tax xam ngeen ni xéewal ji ngeen ñu jox defal nañ leen ko fi yàlla gërëm defal nañ leen ko fi yàlla gërëm xam ngeen ni lii metti na dëgg ngeen Adama sànq ci biiri kàddoom nee na moom li ko gën a metti mooy papaam ji tëdd ci kaw lal bi mënalul bopam dara lu mu lekk du saf ci dara bokku na ci liko gëna met bu sañon papaam jog ba di dox ñu diko gis comme nañ ko daan gisé mu nekk lu metti soxna si soxna si ndaysan mu melni ni won nga sa xel ci tabaski waye mu melni ren di nga tabaski ta yalla rek tax waxal alhamdullilah rabbil alamin alhamdullilah rabbil alamin waxaatal alhamdullilah rabbil alamin alhamdullilah rabbil alamin santal yalla. sant buñu sant buñu garam. amaana li nga liggéeyal yàlla ci sa borom kër gii moo tax yàlla suñu borom faye la indil la xéewal ngir nga tabaski ak sa njaboot uuf leen te yàlla rek tax du ñu yem rek ci jox la xar dañ ciy teg fukki junni te yàlla rek tax sa doom ji taxaw na nga gaaw dem xottil ko ci li ci des nga jënd ci soble ngir maanaam jàpp ci julli gi te yàlla rek tax nga déggé sa ketika yëkëti kaddu yu daw yaram ba joy lan la en tant que yaay. ah ngi sant yalla rek di diko dolli dal diko ñaax rek ne nit mom nek xalé du tax nga nga baña muñ dara ndax eh, jam bu la ko yalla bu la yalla téggé nattu dang koy nango xalé la way nanguna wax dëgg yalla sonaluma ci si dara. mba kon ren di ngeen tabaski. sant yàlla kay dinañ tabaski bu baax di leen jaajëfal bu baax a baax nag di jaajëfal gaa yëpp. ñu ngi ñaanal sa jëkkër yàlla na ko yàlla may. amiin yéen tam yàlla na yàlla fay. amiin. man sonn naa allahu akbar man sonn naa fu ma xalaat dem naa fa ku ma xamit dem naa ci yow ngir sàkku ci yow nga dimbali ma ci sama njaboot gile ndax bu dee benn yoon sax ma teral leen ko ci sama dund gile bu tabaski masaana jub si sama xol day jeex lu ma daan def ma di ko yokk ngir bëgg a teral sama njaboot gile man de jaxle naa aw ma luma terale sama njabot gi le du xoti du khalis du xar wali kan lay jeex li le ñaata at maa ngi toog maag sama njabot gi le amuñu luñu tabaske suma genné buntu kër yi fekk ñepp yew seeni xar sama dom yi si ci koñ bi ndax ñak xar gu seen bay ñak lum leen terale te yalla li kan lay jeex ñaata at maa ngi koy dund maag sama njabot gi xanaa ma xaar Pape Niang ak bonne volonté yi le ay Pape Niang dimbali ma te yàlla tax. yaa muñal yaa muñal yaa muñal yaa yaa muñal yaa yaa muñal yaa muñal yaa wa rahmatullah ku tedd ki santal yàlla bu wér ndimbalul yàlla yëgsi na ci yow xar mi yaay boroom ak xéewal gile bul ñu sant bul ñu gërëm. ñaanalal bonne volonté yi ci jàpp ba lii lépp yemb yéen ñi ci jàppagul def leen ni le ngir ñu mën a dimbali suñu mbokk yi le